ñu waxoon ne nag jumaa ji bi nga ko tàmbalee lim yéene woon waaye mooy waxtu wane nga di ko gis di gis loo xam ci jumaa ji ñu demee noonu ba tey nag ñu yéene sëñ Basiiru mii jox ko addiya jii ne ko mu andil la ko muy addiyaam addiya sëñ Tuubaa ci biir liggéey borom saam bi muy téeméeri million yu mu ne ab tàmbali la ndax ab tàmbali la daa bëggoon na laaj la def liggéey bi lépp